ginnaaw ni yow bi ñu santaat leen gërëm leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV kontaan nañ ci bu baax a baax yéen ñi nekk ci tiktok bi youtube bi ak ci gox yu fasantikoo yi nga xam ni moo ni ci biir réew mi ba ci bitim réew nga xam ni daanaka ña ngi fay topp bu baax a baax loolee euh, cant ak ngërëm lan ciy am bu baax a baax te it di kontaan euh, ci yéen kontaan ci ñi nga xam ni ñoo ne ci groupe whatsapp yi ñoom ñëpp kenn ku ci ne euh, bëgg nañ ci yéen bu baax a baax revue de presse nga xam ni weqaat ak xorom la def tey ji nga xam ni daanaka commencement li nga xam ni mooy revue de presse yooyee kii ji Kalidou Koulibaly di doomu sénégalais ne ci li nga xam ak sub Sénégal ak sub euh, Chelsea ñaari accès yi mu waabale loole tey jii benn bi lay yebbi nga xam ni euh, daanaka war naa football ci match boo xam ne boo am solo la et du Doudou tamit daanaka mi ci biir li nga xam ni mooy sa mbax loobee Chelsea Arsenal nekk soog boo xam ni daanaka euh, soog de haut niveau la ndax Arsenal fi mu toll nii daanaka jigee ko sax léegi jafe na ndax taxawaay boo am na ko bu baax a baax ci li nga xam ni mooy championnat Angleterre CFC Jaraaf loole championnat Sénégal tey ji am na solo bu baax a baax Alioune Cissé ah, mi nga xam ni ah, daanaka fi mu toll nii ci coupe du monde bi nga xam ni moom la dëgmal ah, jaaxla la def ci li nga xam ni mooy équipe bi mu war a tabb pour mu mën a dem fële nga xam ni mooy Qatar ndax ay gaynde la yoo xam ni ñii ñi ngi nege-nege ñii ñi ngi ci forme boo xam ni tabb leen du jafe am na ci ñu bari ñoo xam ni daanaka seeni mbir dana xaw a jafe ci moom bu baax a baax ku ci mel ni Saliou Ciss nga xam ni ba léegi nii loolu di lu am solo bu baax a baax ci li nga xam ni moo nekk en liwun Cissé mi nga xam ne tamit dañ ciy dikkaat ah, ci moom xam ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Dieng nga xam ne mooy Papa Gueye ah, fi mu toll nii ah, daanaka mi ngi ci jàmm bu baax a baax donte Olympique de Marseille football loowu ko waaye boole nañ ko ñoo xam ne ngi saytu ki nga xam ne mooy am xelam tey di ko conseiller conseil yoo xam ne conseil yu am solo ci dund gi nga xam ne moom lay dund mu dund goo xam ne gu metti lay doon Sénégal war nañ caa xam lu bare bari ci coupe du monde bi nga xam ni moom la yëkki ki yëkki yooyu ay stade nekk la tribune sport bi nga xam ni euh, samp na ca ab laaj loolee euh, ci biir xët mi lay gën a a euh, ville de Dakar nga xam ne daanaka fu jàpp ki nga xam ne mooy sandar biire ko ba jeex tàkk ci kawam loolee la def ci basket bi nga xam ne démb ma nga doon amee fële ca stade de Maris Ndiaye jàpp na ko daanaka tëcc ko ba mu xam ni boo feesoon dell ci ay supporters yoo xam ne kenn kum ci mën doon jóge nga fa nga jóge ñëw def li nga xam ni mooy sa keetaan solo ba set ki solo ba set teg ci li nga xam ni mooy yéndekaay bi Siteu la ak Papa Sow ñoom ñaar ñoo ñee nga xam ni soog la bu nu war a am suba ak jàmm soog boobee daanaka ko mën sa morom duma la ni kii kenn du muñal kenn lenn Siteu moom ñi ngi ko woo li nga xam ni moo nekk 16 heures 45 war naa dugg ci biir stade bi lu ko may benn minute bu mu ci tardé loolee dana am daan yoo xam ni kii di CNC dana ko daan ki nga xam ne tamit moo nekk Papa moom ñi ngi ko convoqué 16 heures 45 c'est à 17 heures ñi ngi jégalu ci loolu nga xam ne ñoom ñëpp kenn comme ci man di doon heure ba nga xam ne moom la tabb na fekk nga teew fa loolee di lu am solo bu baax a baax yeneen information ci kanam